tey dañoo ñëw pour def lancement campagne de vaccination fii si Touba te comme ni ngeen ko gisee muy man muy maire Touba Abdoulaye Ka muy commissaire spécial Bassirou Sarr muy directeur hôpitaux yi Ndamatou ak euh, euh, Matlaboul Fawzeyni médecin chef bi adjoint nu premier adjoint au maire bi ñëpp ak personnel médical bi ñëpp vacciné wu bi ñuy vacciné woo ba pare ñu ne ñu da ngeen toog ab diir ñu saytu leen toog nañu lu ëpp fukki minutes ak juróom boo xamante ni gis ngeen nu fi ñu toll ni amul dara lu soppeeku si sunu si sunu yaram donc tout simplement pour dire que population yi nga xamante ni bii dañoo amoon jiixi jaaxa naan xëj na vaccin bi wóorut wala leneen nañu xam ne amul lu gën a wóor vaccin bi tey jii ñun ñi nga xamante ni bi yàlla dogal na ñu vacciné wu am nañ yàqi na dootuñu wàll suñuy mbokk dootuñu wàll suñuy doom dootuñu wàll suñuy dëkkandoo te itam dose de rappel bi nga xamante ne bi war nañ koo def fii ay quelques jour incha allah bu jotee danañ ko ñëw def donc ñooñu la ñuy wax ne nañu def comme ñun pour que li nga xamante ne bii mooy Covid bi ñu mën koo génne Sénégal génne ko ci monde bi. ndax tey jii rek lañ doog am outil boo xamante ne bii am nañ ci yaakaar ne bu ñu si jàppandikoo incha allah lu ñu bëgg dina ko am parce que euh, jàngoro yi fi masa a jaar yëpp te sonal askanu àdduna bi vaccin. mooy li nga xamante ni bii moo ko jeexal te yàlla dogal na tey ji am nañu vaccin bi donc nañ si jublu ñun ñëpp ñu def ko yàlla dimbali ñu mu ñuuti mu génn fi di wax ne kilifa gi nga xamante ni bii mooy xalif général des mourides Sëriñ Mountakha Mbacké may ñaan yàlla na ko gudd fan ak wér soobee yàlla dinañu organiser wu ànd ak peut-être pas toute la presse mais peut-être quelques euh, organes de presse dem moom aussi mu continuer joxe li nga xamante ni bii ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi jugu ci mooy exemple joxe exemple joxe na ko ci masque yi joxe na ko ci respect des gestes barrières yi euh, nu mu tuddati vaccination bii tamit buñ ci nu mu tuddati heure bu bu jàppandee moom itam la nga xamante ne bii maa ngi ko doon def te ñëpp wax ko cee roy ñu jàppee ko mooy général bokk na euh, nu ci général yi nga xamante ne bii mën nañ leen a jàpp ne kenn gënu leen a euh, am farlu pour mbas mi jóge fi jàpp naa ne moom aussi bu ko defee yaakaar naa ne amatul benn Euh, nit bu yeewoo Touba boo xamante ne bii war na jàppandi ne vaccin bi kat wóorul donc loolu yaakaar naa bu ñu ko defee ñeneen ñi nga xamante ne bii ñooy suñu naataangoo yi dinañ am nag xel mu dal pour dem vacciner wu comme ni nu ko defee tey loolu rek lañ si jublu. donc man bu may dem Màkka bi may dem Màkka dañ ne ma da ngay vacciné wu. Màkka kenn du fa dem te amoo vacciné woo damaa vacciné wu chaque année damay def damay damay vacciné wu wax ci donc di sama doom yi suñu doom yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu naan dañ leen di vacciner polio dañ leen di vacciner ngas dañ leen di vacciner xureet ñu di leen ne ngir bëgg a mucc donc soo vaccin ñëwee pro lii ñëw ci adduna bi dal ci réew mi dal sonal ni ñëpp tënk adduna bi yëpp ci économique ak lépp donc suñu demee di jël ay gestes barrières di def ay social kilifa yi luñ man lépp ñu def ko lu état Sénégal man lépp ci ay mooy mu génne ko ba ñu ne lii de mooy vaccin bi génn nañ ko vaccin bi rek la nit mën a def mucc ci man li ma xam mooy képp ku bëgg mucc na def loolu. loolu moo tax bi ñu wootee cérémonie bi mu mel nii di def lancement bi bi ñëwee hésité wuñu sax ak euh, autorité yi muy euh, en tant que maire en tant que sous-préfet de Ndam en les médecins district directeur hôpitaux yi ñoom ñi nga xam ne bu ma feebaroon tey giriboon képp damay woo docteur su ne ko ah man damaa girib wala bu ma doon wàcc man wàcc naa cim réew ñu ne ma réew mi kenn du fi dugg te vacciné woo damaa woo docteur bi ne ko ah man ko damaa wàcc ci réew mi ñu ne ma damay vacciné wu tel est-ce que war naa ko ma jël ko wala bu ma ko jël mu ne ma jël ko ma jël ko dugg ci réew ma dox sama yitte bu ne ma woon bu ko jël damay dem ci hôtel bi wàññi ko ñibbi si sama réew ndax mooy sama conseil ci santé nit nag bu fekkee ne am réew dafay am ay docteur yi nga xam ne ñoo yor bi ñu di leen déglu ci wàllu wér-gu-yaram yor justice bi di leen déglu ci wàllu yoon yor autorité sécurité publique yi di leen xaar ñuy sécuriser réew mi nit nit nag mënoo lii lam réew am waa santé seet ko di ko def ne lii lañ war a def ñu réew mi def ci xaalis bu baree bari président de la def e-, effort ba juróom-ñaari réew yi ko am ci Afrique Sénégal bokk ci ñu ñëw man ma ne du ma vacciné wu te dama bëgg a mucc loolu sama xel mayu mayiwu ko xel waru ko xalaat aussi te mboolem l' ensemble des Sénégalais yi ku am doom bu bu juddoo rek da nga dem vacciné ko juróom-ñaari ñàkk yi koy ñàkk. waaw bu ñu nekkee xale bi juróom-ñaar nekk ngir bañ feebar dal ko boo dem màkk da ngay vacciné wu. boo bëggee bañ boo bañee am girip ci année bi nga dem def sa vaccin grippe ñàkk yi ñëw ñu ne mooy muye musle ci ci ci feebar bi ma ne du ko def man loolu sama xel mayu ma ko loolu moo tax ma sensibiliser l' de des conseils municipaux bi ànd ak sama adjoint maanaam ak ñëw fekk fi autorité locale bi ak médecin yi ñu ànd ñu ñu ñu def acte boo xam ne nit ñi dañuy xam ne ñun ñii nga xam ne kat ñun la yàlla natoo ñu nekk ci bopp nit ñi ja nangu nañ ko def nañ ko ndax ndigal boo koy def da nga ciy da nga booy booy dig nit ñi moom looy def da nga cay def nekk ba noppi ne ñëw leen ci. amuñu ci benn arrière pensée ci ne baax na war nañ ko def def nañ ko. may ñu rek ñu sant yàlla euh, vraiment ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te wér di santaat bu baax ci ni ñu amee euh, chance. di remercier le président de la République ba vaccin yi ñu mën ko am à notre portée ndax ñëpp xam nañ mbas mi li mu fi faat xam nañ li mu fi yàq sur le plan économique farde bi mu fi créé lépp donc ñu ngi doon euh, wax di sonn di sensibiliser di def vraiment beaucoup d'activités pour nit ñi di respecter mesures barrières yi waaye doyul woon donc yaakaar nañ ne vaccination bi bu ci yokkoo mën na génne mbas mi si àdduna donc bu yàlla defee tey ba mu am ba yegsi si ñun dañ ciy sant yàlla donc tey ñu doon def lancement bi avec euh, autorité administrative yëpp muy préf sous préfet de l' de Ndam le maire de Touba ak euh, le directeur d' hôpitaux ak képp kuy liggéey ci santé ci wàllu ci wàllu santé fii ci Touba ñun ñëpp ñu àndandoo wax fa dëgg yàlla joxe exemple ndax nit ki man pour man bu buy dugg ci pax ne la kaa ñu ànd war ngaa rafet njort te xam ne bu fa dara nekkoon du fa